الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي برأني الباقي من الأمراض وكب من أنكر باعتراضي له شكوري على حياتي عبدا قديما فاز بالآيات أشكره سكر الذين شربوا من عذبه وللجنان قربوا xust xayaatan la turaani xayri mujizatan banat li uduni xayri yajuudu mbokk yi ñu seetaan foo leen mën a nekk ci àdduna ñu ngi leen di niw di leen ziyaar di leen baalu àq di leen baalu ak di leen niyoo ci pàkk bu tedd pàkk bu am wàccuwaay waaye pàkk bu am taarix ci yoonu murit muy Mbàkke Bari Jolof di bërëb bi nga xam ne nii Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasoul foofu la déparé woon ci atum 1895 di la 10 août waral bisub tey bi dem nag ci tukkeem bu am solo bi euh, bis boobu nag saa su ñëwatee nag euh, mbokki taalibe yi di yi di ko taxawu euh, rawatina nag ki nga xam ne ni tey jii moo nekk ci bopp dëkk bi muy Serigne Cheikh Jorel Mbacke ñu màggal gi nag ren ak lim dajeel tax na ni ñu ko doon màggale ak ren dina wute xam naa Serigne bi dina ci dikk loolu tax na nag ginnaaw bi ñu ko nuyoo ziar ko fas yéene ànd ak moom ci ay waxtaan yu am solo ci dëkk bi bis ak taarixu li nga xam ne ni moo di bis bu bi kon وقد محى عني داعي الطبيب برأني من كل عيب ومرض وقعد للصحة في كل غرض برعت من عيوب نفسي بالتجاه إلى الذي أبوابه لن ترتجى هو الكريم الأكرم المكرم واليمين لا يريم الكرم sëriñ bi ginnaaw nuyoo yi ak ziar yi Euh, taarixu bisub tey bii lan nga ñu ci mën a leeral mbokki taalibe yi ñuy seetaan fu ñu nekk ci àdduna. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare te di leen jaajëfal itam ci teew gi nga xam ne teew si ngeen ko ci bis bi nga xam ne dañ ciy fàttaliku euh, tukkib Seex Xaadim radiyallahu taala anhu ñu di ci sant yàlla bu baax nag li nga ko waxee lu ëpp ñaar fukki at ñu di ko ànd ak waa réew mi yëpp waa bokk Jolof yëpp ak bokki taalibe yëpp ak bokki murid yëpp di taxawu bis bi muy fukki fan ci août nga xam ne moo dëpp woon ak fukki fan juróom-ñett ci safar Seexul Xadiim radiyallaahu taala mu xëyee woon fi ba dem ci géej gi ba ñibbisi ba dem njaare ba dem gànnaar ba ñibbu ko Ceyeen ba mu ñëw njaareem ba am fa ci fukki at ak nangam mu woote xëy benn bis mu xëy woote def ay teraanga ay bernde daal di xamal ne bis bii kat bu ñëwatee képp ko xam ne sama mbég sa mbégte ren nanga ma sant yàlla ndax mooy bis bi nga xam ne ca la xëy woon Mbàkke Bari suuf bi ci liggéey bi lu ma am ci yàlla yoon ci bis boobu laa ko amee ci noonu santaane ko mag ñi di ko taxawu kenn képp ku ci nekk di ko defee ci barabam saa bu dikkee lu man ñu def ko ba mag ñi tudde woon ko tabaskiwaat sëriñ bi moo ne kon loolu day nëru biddaa kon nañ ko tuddee waat nañ ko tuddee la nga xam ne kon baatu màggal sëriñ bi moo ko jëkk a euh, wax ci làmmiñam ba noppi itam wëlbatiku euh, jëkk a woote màggal ba tax na kon màggal googu ak baat boobu nga xam ne moom la waxoon ci dëkk bi ak ci barab bi loolu mooy ndey màggal yëpp boo gisee sax euh, sëñ Moussa Ka radiyallahu taala anhu dana koy yaxal ca xasidaam yi wolofal ya ne ma wax la nag bis bi yaayoo miiraasu ba dese woo dara ni koy faraasu mooy bis ba Bàmba xëy Mbàkke baari tàbb ci géej gi xëlmati yi loolu nag bi ko bokki jullit yëpp xamee ak bokki taalibe yi ñu àndandoo ci ndimbalu sëñ Tuubaa di màggal fukki fan ak juróom-ñett ci fu ne ci réew mi ba yàlla dogal Cheikh Mamadou Fadilou radiyallahu taala anhu bi mu toogee toogaay jataayu sëñ Tuubaa mu xam le ne kat gannaaw sëriñ bi da koo digle woon taalibe yi kenn ku ne di ko defee fa mu nekk léegi nag sëriñ bi ñu bisi tubaa Tuubaa damaa bëgg kon taalibe yëpp daje tubaa ñu di ko defee si fii fi moom kon Cheikh Mamadou Fadilou moo ko jëkk woote ci Tuubaa mu yaatoo nii ñu di ko dund nag di ko màggal ba ni nga xamante ne ni la dekkale barab bi andi ci suñu wayjur bi ñu njëkkee nag ba année 99 jàpp 2000 ci la bokki taalib yi nag bokki jolof yëpp nag ànd ak murid yëpp nag ñu jàpp nag xalaat bis boo xam ne daañu ko màggal ñu demee wax ko Cheikh Saliou radiyallahu taala anhu mu xam ne ne dëkk boobee di moom bisam mooy bisu ma bisu Touba daal kon na ngeen seet bi mu dajaloon ci juddu bi yàlla Isa muy euh, weeru tubaab ñu ne ko loolu di discours la mu ne kon discours de bokk na ci moo gën a wér sax ndax bis bi du toxu ñu di ko màggal nag ñaar fukki ak benn ci at mu jot nag ñu fonk ko lool bokk yëpp di ci def luñ mën ak luñ mënul ba ma saan ñëw da ngay fekk àll bi yëpp toog ñaar fukki kuréel ak juróom-ñett wala ñaar fukki kuréel ak ñeent kenn ku nekk dal ab dalam dëkk bi yëngutu lool waaye ren nag lii mu dajeel muy mbas mi nga xam ne dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yàlla daal a loolu moo sabab nag ñu defoon yoo xam le ne euh, dañuy soppi defin wi mooy kuréel yi nga xam ne dañ daan ñëw di tax seeni dal muy mbooloo yu dul jeex nañu ko dakkal kortee nag ca bis ba nag moom ñu bañ ko bàyyi saa ñëwee nag ñu daj fa jàng alxuraan jàng xasida saafonte bokk yi fa daje saa bu ñu lee tisbaar rek ñu mën a yooyu mbooloo yëpp ñu tasaako kon loolu daal mooy taara ko màggal bi loolu ko sabab muy bis bi liggéey ci liggéeyam bu mag boobee euh, sëriñ bi wax nga ko léegi euh, kon mën nañ ne màggalu Mbàkke Baari mooy ndeyu mbooleem màggal yi ndax mooy euh, màggalu Touba 18 safar waaye sëriñ Touba Cheikhul Khadim tànnoon dëkk bi di Mbàkke Baari ba tax mu déparé fi liggéeyi liggéeyam bi nga xam ne tey ji moo waral lépp lan nga nu mën a wax ci diggante Serigne tubaa ak baar yi ak lan nga nu mën a wax ci wàccuwaayu dëkk bu tedd bi nga xam ne nii moom la Serigne bi tàmm woon. waaw diggante sëriñ bi ak Mbàkke Baar yi maamam maa xaram ñi nga xamante ne mooy wajuru maam Xabibulaahi maam Xabibulaahi di wajuru maam Moratu Sali di wajuru sëriñ bi wëlbatikuwaat itam maam Maharam di way juru Ahmadou Soxna Bousso Ahmadou Soxna Bousso jox soxna di way juru Soxna Aswalu Soxna Aswalu Mbàkke di way juru Soxna Jaara Bousso kon maam Maharam moomu moo sancoon dëkk bii wax nañu dëkk na fi lu toll juróom benn fukki at ba muy dem nag mu bàyyi fi maami sëriñ bi muy euh, Ahmadou Soxna Bousso ñi euh, nga xam ne mooy way juru Soxna Aswalu muy way juru Soxna Jaara bi ko fi bàyyee bu nekk fi nag ba ba lu soob yàlla ba muy génne àdduna fi lañu jamono yi nga xam ne sëriñ baa ngi waaj liggéey bi nag bi mu defee xalwatoon bu mag boobu nga xam ne siiw na lool ci Daaru Xudoos euh, ci la jote nag ndigalu soobu ci liggéey bi mu amoon nag ñaari gàllankoor yoo xamante ne ba ca des mu ba ca jëkk mooy euh, suñ boroom ci boppam aaral na ko Touba ba nga xamante ne euh, dara du ko fa fekk loo xam ne luy niru tiis la ndax tukki bi sax lu tiis ci sëriñ bi Euh, bi nga xamante ne loolu am na itam fekkoon naa nit yàlla bu baax ku ñuy wax askamara ma naa gis sëriñ bi xamal ko ne ko yow de dafa mel ne am na liggéey boo xam ne danga ko suubu muy liggéey boo xamante ne képp bépp nitu yàlla bu ma sa jaar suñu borom mën na ko ko waaye bu ko xoolee day xam ne du ko attan mu teg ko ci suuf liggéey boobu dafa mel ne yow danga ko danga ko liggéey waaye nag da ngay say noonu waaye boo ci jógee ne da nga ci jëlee ndam loo xam ne ku yàlla bind mosu ko am ci loolu nag moo sabab as camara na ne ko nag man nag li ma ci gis mooy wa da ngay dem ci sa suuf yoo xamante ne say maam ñoo ko moom boo fa waajee liggéey bu boo fa jógee da am ndam loolu moo indi seen bi mbàkke bari bi nga xamee ne ni ñëw na itam kon sababu baatin bi moom suñu borom namoon na ci asal mu dajeek ñoom te xam ne la muy am ak la muy bëgg lépp ci loolu la koy amee mu ñëw nag fii ci ndigalul sanc ko ci ñaari fan ci kori wax nañu ne bi muy xëyee Touba gannaaw bu mu julee korite ba noppi dugaatu ci kër gi dafa war rek jim si fii wax nañu ne surat fatil kitaab la tàmbalee Baqara ba ci inna malikin muqtadir jooju ci xamar ba mu ci àggee ci la agsi ci barab bi daal di koy sanc daal di jàkkaarloog tund bi nga xam ne ci la maamam maaram dëkkoon moom mu sanc bi daal di koy tuddee Daaru Xudoos fekk na turu Mbàkke Bari mi ngi fi mu dellu amaat kër gu mu sancaat fii ci nda càmmooy tuddee woon ko Touba ñu daan ko wax Touba foofu sel waaye foofu moom jëmmum si tedd ji rek moo fa daan dem dafa yandu ak am ñam fay dajal waaye fii moo doonoon kër gi nga xam ne moo doonoon kër gu mag mu waaj fi liggéey bi nag juróomi weer yu manqué tuuti la fi am ñu ko sax moomu dafa liggul nettalee waaye it ci biir juróomi weer yooyu itam fekk na dég-dég yi yaatu na ba mu nekkee Mbàkke Kajoor di yaatu ci ba mu nekkee Mbàkke boobu di gën a yaatu bu mu nee Salaam bi ñëwee Touba nag adduna bépp fekk ko nag Touba bi tàmbali nag di tere sax ku dëkk ci Touba ci loolu nag la waajee foofee nag ñëw sañ si barab bi muy Mbàkke Bari mu nekk juróomi weer yu manqué tuuti xam naa yàgg ñàkk yàgg yu ñu fi ñàkk yàgg moo tax sax turu Mbàkke Bari yi waaye sëriñ bi moom daaw tënku ci aada bu mos a dem rek bu dee bu dee tur Muhammad lay doon bu dee dëkk itam da koy dàkkantal ci tur yàlla yi moo tax bi mu ñëwee nii mu sañ ci dëkk tuddi ko Daaru Xuddoos fekk na ci këram nga ci Daaru Xuddoos la xëye woon ñëw sañ si fii loolu daal mooy taarixu dëkk bi ko waxee léegi diir bi fi sëriñ bi def yàggul ba keroog muy jot ndigal ci suñu borom dem daje ji ak tubaab yi ngir liggéey am ndam diggante boobu tey bu ñu doon wax njeexit yi nga xam ne nii am na fii ci dëkk bi euh, muy ay bërëbu ziar ay bërëbu wàccu euh, bërëbu wàccuwaay yan bërëb nga ñuy euh, tegtal ci mbokk yi nga xam ne ni xëy na ñu ngi dégg Mbàkke Bari te mësuñu cee mësuñu fee ñëw te bëgg xam yan bërëb yu gën a am wàccuwaay la fi sëriñ bi bàyyi. waaw wàccuwaay bi moom li ci ëpp rek mooy mooy mooy dëkk beeg barab bi ak këram bi mu dëkkee woon ak néegam bi mu dëkkee woon ak jàkka ji mu doon jaamu Cheikhul Khadim radiyallahu taala anhu euh, diir bi mu nekk fii euh, di jóge Touba sëñ Mbàkke maam sëñ Mbàkke bu soo ko bàyyi woon xamal ko ne ko ku ñëw tey jàng tey tey tey te yor lu muy jox yor jox na la ko jox nga ci dëkk bi bu ma kenn fekk foofee loolu koo xamante ne day jàng la muy tabb yow sëriñ bi ne ñëw sañ ci dëkk bi ci anam boobu euh, barab yi nga xamante ne moom nga laaj barab bu siyaar eh, dara ëpp ci solo suuf soo xam ne sëñ Tuubaa da koo taamu ñëw waaje fa liggéey bu am solo bi dama am ci ndam man dama dama koy mandargaal ci baytul muqaddas bi sallallahu alayhi wa nga xamante ne suñu borom rañaane na ko ci guddi ga yóbbu ko baytul muqaddas mu fekk fa yonent yi jiitu woon yëpp mu jiite leen ñaari rakk Euh, Jibril alayhi salaatu wa salaam xamal ko ne ko sa borom daf laa woo mu daal di fay jóge euh, rañaan dem ci boromam ak ya xew ci diggante bi yëpp mu jox ko fa julli juróom muy sëri ceeb bi nga xamante ne moom la indil julli bi kon mën naa ne wàccaay woowu nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon dem bayti muqaddas kon mën nañu euh, mbàkkibaar gi mën naa taxa taxawaay boobu ndax fi bi waaje soobu yoonu boromam bàgg ci boromam ba am ci lam ci bëgg yépp kon daal mën nañ ne li nga xamante ne euh, baytu muqaddas am na ko wàcc wàcc ci lislaam ci yonent bi sallallahu nga xam ne fa la waaje rañaane fa fekk fa yonente fi jiite leen noonu itam sëñ Tuubaa def ci barab bii ndax barab bii sëñ Tuubaa bi mu fi ñëwee mboolem mboolem nit yàlla yi ko jiitu woon yëpp fekk nañ ànd ak seen kilifa nag mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waa ahlu badr kon nag suuf soo xam ne nit yàlla yëpp wàcc nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam penkonte fi Sëriñ Tuubaa yaxasatan laa manaan wëlbatiku waat itam waa ahlu badrin itam waa ji ànd ak moom gunge fi ci liggéey ba mu dem ba dikk kon daal si suuf dama doon suuf soo xamante ne daal Euh, yëg nañ ne daal képp koo xamante ne yàlla tawfeexal na la sa jëmm ñëw bi suñu borom mën naa faj say aajo te la ci ëpp itam loolu lañ ci gis te Cheikh Mamadou Fadil mi ko yeesaloon itam yabal fi suñu wayjur itam su daan wax ne ku amul paas sax jar na dox dem fa kon nag ku fi ñëw tey rek war nga sant yàlla bu baax nga xam ne xam naa laaj bi ñuy mujje mooy comme ni nga ko waxee baar yi nekk dëkk bu am solo ci taarixu yoonu mu murit waaye gis nañ ne Mbacke yi xëy na bëri na loo xam ne nii fi jamono toll xëy na amu fi wala manqué na fi loolu itam euh, boo ñu ci doon leeral wala boo doon lancé message ci ñu gën a fonkaat dëkk bi gën koo jox wàccuwaayam yan kàddu nga ci sànni. xam naa loolu li ci sànni rek mooy rafet nañ ci nag njort ndax. damay jàpp ne dafa doon barab boo xam ne saa bu séddoo rek ñëpp fàtte seen cër man noonu laa ko jàppee te sunu way jur sëñ Cheikh Thioro radiyallahu taala yàlla na yàlla yokku leeram daanañu wax ne Cheikh ma ne ko Mbàkke mu ne ma Mbàkke Baari bis lay nekk ndax Cheikh moom Fallou bu fi yabale daf ko ne noonu yow yow bu ko wootee at mi nga xamante ne ci lañ ko jëkk wootee benn at mu fekk ko fi mu ñëw ñëw fi ci at moomee la la génn daal mën nañu am yaakaar ci ne euh, xëy na dafa nar a gën a jiitu barab yu bari rek moo tax mu mujjee waaye nag da ca am lu am solo solo loo xam ne fàttali bokki tali bi yëpp rek mooy daal daanaka wax ay yoon yoon ma ne man daal xaw na maa jaaxal Europe ak fu ne foo dem fekk fa kër sëñ Touba goo xamante ne sëñ Touba tànk musuwaa jam ci saa yi ci luñ xam ay taalibe daje rek dafa kër sëñ Touba goo xamante ne bu mucc ayib la ñu daje fa rawatina na kër gi nga xam ne daf koo dëkkee woon moo njabootum sel woogee waaje fi dem ba dikk wax ne lu ma am ci yàlla yonte bi ci laa ko amee kon daal damaa jàpp ne daal bépp taalibe boo xam ne bépp murit boo xam ne suñu borom euh, denk na la xéewal jàpp naa ne daal ñëw liggéey ci Mbàkke Bari yi daal dana doon sa yokkute goo xam ne dana doo kon nag euh, ñu bañ jàpp ne Cheikh Jooreel Mbàkke moo fa nekk moom jëwriñ rek ñu fi nekk ànd ak bokki taalib yi ñu di fi liggéey sëñ Tuubaa waaye dama bëgg daal taalib yi yëpp xam ne daal barab bi barabu sëñ Tuubaa lu fi waaye def deful ko Cheikh Jooreel deful ko kenn sëñ Tuubaa la ko defal kon nag maa ngi lancé appel ci góor taalib yi yëpp rafet nañ ci nañ jot ndax Cheikh Mamadou Fadli bu ko yeesaloon ñëw na fi ñaari yoon gannaaw boo xamante ne nekk na fi booy juróom Cheikh Mamadou Fadli Cheikh Mamadou Moustapha ak Cheikh Mamadou eh, ak ak soxna Fadja ak soxna Aminta Kanni ak mag ak ñu bari daal ñu eh, rafet jot ci ne eh, jëmm yu sell yu mel noonu daal fépp buñ teg seen i tànk rawatina Cheikhul Khadim jàpp nañu ne daal murid yëpp ñoo ko bokk na murid yëpp daal jàpp ne liggéey bi seenub liggéey kon nag ñu ci ñu ngi ci woo ñëpp Cheikh Mouhamadou Fadil ñëw na fi Cheikh Mouhamadou Lamine bi mu doonee Sëriñ Tuubaa ñëw fi ay yoon saa bu ñu ko masaan defee Cheikh Sidi Muxtaar yabal ay ndaw yabal ay doomam ñëw teew si Sëriñ Muntaxaa itam am na yéene lool yaakaar naa ne bu dul woon mbas mi ba na ngeen ñëw na fi ndax wax na ko waxati ko ne bëgg na maa ñëw ci barab boobu siyaare bi ndax lu ma yàgg bëgg ba jàpp nañ ne daal foo xamante ne daal Serigne Touba moo ko sanc ay doomam fonk ko di ko toppatoo ay sëtam fonk di ko toppatoo taalibe yi daje fi di ko dundal jàpp nañ loolu yàgg-yàgg rek taalibe bu borom nambal ndimbal daal da nga geesu barab bi dugal ci sa loxo ci biir ak ci biir. mu mel ni am na ay naal yu am solo yi itam yeneen fi naaloon yooyu tam ndax mën ko ko fàttali mbokki taalibe yi. naal yi ñi nga xamante ne ñu ngi waaj ndax suñu koy jur sëñ Fall da ko digaloon ne ko bu nawetee làq fa liggéey bu waree nga ñëw ci nit ñi bi mu wàccee nag noonu lañ fabu nag ak suñu njaboot ñu ànd ko bokki taalibe yi ngir ñëw bëgg dundal barab bi ci loolu nag lañ demoon ci Cheikh Saliou Mbacke radiyallahu ta'ala anhu xamal ko ne ko de dañ bëggoon a woote bis loolu moo waral sax moom mu tànnal ñu fukki fan ci guddi mu ne bis bi lu ngeen ci jublu ma ne ko xanaa saa buñ fa dajee bokki taalibe yi daje fa ñu dundal bis ba màggal ko bu jàllee lu ca facce ñu taxawal ci eh, néegu yàlla bi nga xam ne ci la suñu Tuubaa doon jaamu yàlla taxawal itam daara ji nga xamante ne moom ci boppam moo bind ci xalimaam ne dëkk ba nga xam ne dama ko sanc ci Jolof ci jàng ak ci jàngale ci loolu itam ñu misal fi daara xam-xam yoo xamante ne eh, dañ ciy sàkkoo xam-xam yëpp loolu ay nisar la ci barab bi béréb bi nga xam ne ci la Seexul Xaadim nekkoon itam ñu nisar ci itam defar barab bi nga xam ne ci la nekkoon defar boo xam ne dëppoo na ak jamono ba noppi sàkk ci ay dalkaay yoo xamante ne bokki taalibe ak kilifa yi saa bu ñëwee mën cee dal euh, ci loolu itam yoon woo xamante ne day jógee ci tali ba ba ñëw fii soxla nañ fi itam poste de santé daara ji itam moom li ma la ko waxee rek li ñu bëgg daal mooy daara joo xamante ne xeeti xam-xam yëpp dañ ko fi jàng dañ ko fi xamee ñun daal nisër nañ ko fi ba tax na seen Cheikh mi jëwlin def na ci ay plan def ci ay yéene yu baree bare yoo xamante ne lu ci nekk euh, nisër na ko mbaar mi nga xamante ne moo nekk ci buntu jumaa ji gis ko tàmbali na ko noonu moo ñu itam ñu bëgg bu àggee ñu di daje ñu def ko muy daara ji bu màggal gi ñuy mbooloo mi gën daje yooyu daal bokk na ci yi nga xam ne nañ ko ci béréb bi te ñaan ko te ñaan yàlla itam bépp taalibe boo xam ne suñu borom am am na ko dimbale mu ñëw dugal ci waaw waaw ñuy tëje kàddu yi rek mooy li ñu fi jàng ci alxuraan ak li ñu fi ñaan yëpp dañ koy def addi yi Seexul Xadiim radiyallaahu taala ak mboolem bernde yi ñu ko defee lépp rek delloo nañ ko ci addi yi Sëñ Tuubaa radiyallaahu taala bi ñaan nag Cheikh Mamadou Muntaxa ñii nga xam ne moo fi nekk Sëñ Tuubaa suñu borom sàmm ko sàmm ko sàmm ko bàyyil na ko fi ba nga xam ne naal yi nga xam ne na yéene na ko liggéeyal sëñ Tuubaa lépp moo àggale ko ci sagoom te ñu ànd koog moom boo gisee ma tànn ko ne yàlla sàmm ko moom mi nekk ci bopp bi ko borom sàmmee rek ñun ñëpp ci biir càmm boobu la ñuy kon nag ñu ngi ñaan yàlla suñu borom sàmm ko bàyyil na ko bi yéene yi nga xam ne am na ko ci yoon wi am ko ci lislaam bi suñu borom bàyyi ko fi ba mu ak ba mu def ko nam ko bëggee baraka lii fi kusrina wal kulli barakatam bi qadrihi al mujalli نويت كوني شاكرا بما أحب لأنه القل الحبيب والأحب على وسيلتي وجاحي جنتي محمد خير البراء يا جنتي ما لا يعد من صلاة والسلام ممن به لقد أفضل الكلام تسليم من ما عنده لا ينفد على الذي إلى الصناء أحفدهم هديتي إلى جمعة الثانية وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وقديمه وسلم كبرم ci ndigalal sëriñ Cheikh Jóoreel Màkke ayadahu llahu wa ataala umruhu bés bii nga xam ne bi sëriñ bi wax fii ka saha bi fii ka iyaa bi fii la woon fii la it ba tey fii la demee woon fii la ñëwee yàlla dëppale ko 18 safar mu tapp dëppoo fukki fan ci weeru ut sëriñ Cheikh Jóoreel Mbàkke ànd ak taalibe yi di ko màggal fii ci Mbàkke Baari bésub tey bii di fukki fan ci ut tàmbalinoo tàmbali noo gi di sant Serigne ci alquran jot nañ cee jàng ñeen fukki kaamil ak benn xasida yi ñu jàng ci mawaahibu naafi téeméeri xasida ak ñeen fukk wa kaana xaqan alaynaa nasrul mu'miniin jàng nañ ci juróomi téeméer ak ñaar fukk ak juróom-benn zindiidi ñu jàng ci ñeenti téeméer ak fukk ak ñeent tuhfatu mutadarrihiin ñu jàng ci ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn xasida laa taqaf jàng nañ ci juróom-ñetti fukki yoon ak benn ak ñeent matlabul fawsayni ñu jàng fukki yoon ak juróom. yaa rabbi bil Moustapha jàng nañ ci ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent matlabu sifaa yi jàng ci ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar jaalibatul maraaxib jàng nañ ko ñeent fukki yoon hijaabu daaray jàng nañ ko juróom-benn fukki yoon mafatihul bisri ñu jàng ko juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-benn taysirul asir yu jàng ko fanweer ñeent jawartulaaha bi kitaab jàng nañ ko téeméer ak fanweer ak juróom-ñaar wala xadd karam naa ñu jàng ko fukk ak juróom-ñeent fatihul xafaar ñu jàng ko juróom fukk ak juróom-benn saana ilaahi bil munaajaati jàng nañ ko ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak ñeent allahu hayun samadun wa baaxi jàng nañ ko ñetti téeméer ak fanweer ak juróom-benn sóoratu yaasin jàng nañ ko juróom-ñeent fukki yoon ak juróom-ñett salaatu ala jàng nañ ko fukki junneeg juróom jërëjëfe sëriñ Touba wax nañ ko fukki junneeg juróom jërëjëfe Serigne Touba. te mu sàmm mu set mu mu bàyyi ko ci suñu tam bu yàgg dafa ne ne mu yàlla sàmmalee sëñ Muntaxa rek loolu ñëpp ñu ci biir càmm kon sëñ Muntaxa ak rakkam yi ak taalibe yi ak bokk yi bu ñaanalee sëñ Muntaxa yàlla na ko yàlla sàmmal bàyyi na ko ba bu mel na ndog mu am ci liggéey bi nga xam ne moom la liggéey sëñ Tuuba ñu ngi ñaan yàlla itam bu dara man ci moom dara lépp lu sumb rek bu ko liggéey sëñ Tuubaa yàlla ko defee nam ko bëggee dañu ànd ko ci barke nabi sallallahu alayhi wa sallam boo gisee ñu tënk ñaar bi noonu nag dañoo xam ne sëñ Muntaxa bu ko yàlla sàmmale rek ñun yëpp ak rakkam yëpp bokkam yëpp ci biir càmm boobu la ñuy dugg kon yàlla na ko yàlla sàmmal bàyyi na ko barke kon ñu ngi sant bu baax nag Euh, sëñ Moustapha rek dal ko gën a gërëm ak mbooloom yëpp nag euh, di fa di fàttali itam màggal gi ne li ko waral mooy li ko yàgg waxee rek mooy santale sëriñ Tuubaa yàlla subhaana ndax moom moo wax ne gannaaw boo xamante ne jóge na ci géej dem jóge na ci géej gi tubaab yi dugg gànnaar. bisimilah. عليهم امام بلا انتهارين الي قادم الايام مع دروس القيام والقيام يا يقول من له الشهور مع دونه الشهور والتدبير يا يقول من له السنون ما قاد بالمفروض والمصنون هو الكريم النافع المكرم وعبده خير ولا المكرم dañ ko yéwee nag yaa koy xam kon nag sëñ Cheikh li nga wax rek doy na sax lañ cay teg rek mooy dañ jox nuyoo bu mag ñi nga xam ne ñooy suñu kilifa muy sëriñ Mountakha mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikhul Khadim ak nuyoo bu sëriñ Abo mi nga xam ne moo toog jotaay Cheikh Mouhamadul Fadal di ko jaarale ci Cheikh Mouhamadul Bachir di ko jaarale ci nuyoo sëriñ Abdou Fatah mi nga xam ne mooy jotaay sëriñ Fatah lañ ko toogee. jarutoon mu ci jël kan waaye ni mu ko waxee rek noonu la demee sant nañ ñëpp gërëm nañ ñëpp jataay bi nag jataay bi sëñ Tuubaa la waaye sëñ Fallu ko moom bi ko sëñ Fallu moomee nag dafa am ci loxo yi mu ko jaarale woon muy waajuram sëriñ Cheikh Thioro moom Cheikh Absa moom maam Abdou Salim mu jël léppam jëbbal ko Serigne Touba ne ci a ji di moytu ba yàlla dogal mu wàcce ko mu ñëw jox ko dëkk bii ne ko nefi kon bu nuy sant wala bu nuy gërëm Cheikh Thioro la ñuy gërëm kon yàlla na ko yàlla fayal te di ko ñaanal fu mu tëdd yàlla na ko gënal fu mu jóge te dana ko gënal ndax liggéeyal na mag la ma waaju kon nag sëriñ Cheikh wax ji jarul guddal li nga wax rek lan wax fi nga nekk rek lanu nekk ñun nag danoo jaxasoo ndax danoo bokk juddoonoo ci kër nit nag boo juddoo nag moom ci kër da ko xam xam na lu la kilifa gu jub nga ndax kilifa bu jubee la ca des lépp nag mbiram la waaye nag li ñu ko xam mooy kilifa ba bëgg kon nag ñi ngi ñaan ci barkeb Sëriñ Tuubaa mboolem li nga sëmb rek yàlla na ko eggale ak ñi nga ko bokkal noonu nag li tax nu féetee yéen Sëriñ la soob mu féetee ko bañ moo tax lu ngeen ne danañ ca ne kon nag jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf sant nañ bokk yëpp gërëm nañ yëpp ñu ngi ñaan ci barkeb mag ñi daal jataay bi yàlla bu mu doon suñu mujj jataay loolu fi ñaan ci alquran ak xasida yi fi jàng yàlla ko yàlla def muy li bi sopp ak li sëriñ bi bëgg mag ñi nag noppi nanu ba noppee ci noonu nag ba noppi jur na fi nu war a jure jaarale na fi nu war a jaare tudde ñu ñu war a tudde ay gor lañ ñoom suñuy wajur yu jigéen di ay gor ñu judd ci ñoom doon gor gore nag noo koy fexe kenn du na ko fexe kon nag li ci des mooy lii rek sëriñ Cheikh nag jërëjëf nun noo bokk juddoondoo ci kër gi yaroondoo ci kër gi ànd ak sa bàyyi di ñëw fii di dugg ci néegi ñax di dugg ci keesi sakket dema dem ba tey mu mel nii yàlla na nga def lu sa baay def nag kooku ñaan la nga bëgg mu yambare da nga naan yàlla na nga def lu sa baay defutoon yow nag def ko lu sa baay defutoon kon jërëjëf asalaamaaleykum wa rahmatulah. ala mubaqi yajudu mayrim اكتب لمن أخذ وردي يا كريم مستعملا بي ثوابا لا يرم يا ربي اجعل المريدين معا في حسنك الحسين والصمل اجمعا ملك جميعهم نفوسهم بلا شيء يضر والمساع يقبلا اغفر لكل من إلي مالا وعن يدي لا تزحزح مالا نفعتني فارفع بي العيالا يا من حوى الأمير والأقيالا كلي بما